du ma wax ak Tidiane Faye ba jeexal du ma wax ak le professeur ah nga xamante ni bu waxee ñëpp dinañ ko déglu combat bu mag diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier loo gis affiche boobu. jafe naa pronostic nag wax dëgg yàlla xamul tax dafa am foo xamante ne Bombardier jóge na fa am foo xamante ne Balla Gaye jóge na fa. Mhm. Bombardier fi mu jógee moom mooy dafa dem MMA. Mhm. jëlee fa benn defet boo xam kenn foogewu ko. Mhm. Balla Gaye bëreewul ak Bombardier. ma ja daanoon ko kon ñoom ñaar da ngay seet ne différence bi sorewul waaye Balla Gaye da gis ci communiqué am muy wax ne moom mag la man xale laa. te ma gis ko tamit mu liggéey ba tolloog moom ci dayoo poids. kon nekk na làmb joo xam te ne day jafe pronis waaw. Balla Gaye tukki tukkiwaat Bombardier dem MMA loo ci gis. non forme bi moom man duma ko jooy chaque jour. xam naa ne daal ñoom ñaar ku ne da am sa sa foor ñoom ñaar te soor seen ñoom ñaar seen foor yëpp benn la muy attaque xaw ma ne kan mooy bàyyi fooram defi leen waaye kooku dina am ndam. ñaañu attaqué bu kenn dégloo moroom nu muy demee. bu kenn. ñaañu attaque bu kenn dégloo moroom nu muy demee. am na koo xam te ne bu dégloo di nga gis lu garaaw. bëre woon nañ 2014 mën naa ne juin la woon su ma juumalee. Balla Gaye Bombardier daan ko ban faay nga jàpp ne moom moo waral ba Balla Gaye ñàkk combat boobu. combat boobu noonu Balla Gaye xam nga chaque jour day am làmb mbëri làmb yoo xam te ne nekkul da ngay ñëw rek ne lii laay bëri chaque jour lii laay bëri. Mm. làmb des fois da ngay ñëw day laaj taxaw nga taxaw. Mm. day laaj taxaw sa la biir làmb ja arbitre suuf fur nga ne tekk taxaw. Mm-hmm. ñu ne tey lii kii di Balla Gaye mii lan la andi tey. Mm-hmm. mbaa ñu ne ba waajee mii lan la andi tey. loolu dafa bokk ci làmb waaye chaque jour rek ñu xam la attaquant nga ne chaque jour damay dem attaqué ji bu boobaa chaque jour dañuy xam ne carrément kii chaque jour yoon bi lay jaar dañ lay xaar foofu pour ñu fiir la fa day yomb mhm. te ñoom ñaar même même qualité la ñuy bëree mhm. Balla Gaye day attaqué Bombardier day attaqué mhm. comme baa bi ñu gis Balla Gaye ci communication comme ni nga ko waxee jàpp na ne Bombardier da koy jël faxas sànni ci est ku la daan war nga mën a am état d'esprit bu nga a bëri moom non man gëw ma ko sax xam na gars yi ñuy wax si combat dañuy wax signature ak li ñuy li ñuy bërëjee du doon benn de mhm. parce que ku nekk da ngay tegal sa ndëgg sarax sa morom rek Bombardier da ngay tey tegal ndëgg sarax Balla Gaye tamit day nekk est-ce nekkul lu pièce da tamit lu mu wax rek mhm. pièce day doon rek parce que day ji ñu ko encadré woon dañ koy wax ne carrément est-ce que mhm. boo defee lii doo gën parce que comme bay baasa da nga woon est-ce que doo taxaw est-ce que tamit Bombardier du ne Balla Gaye mii dinaa ko taxaw mais man gëw ma ko nag parce que ñoom ñaar yëpp ay attaquant lañ. laamu gis nga ci xeex. day xeex moom Fala force moom. Hmm? waaw waaw force moom. Balla Gaye faw mu xeex bu waaj taw mu xeex. Hmm. ndax ñoom ñaar ruq ruq bu tàng jiir la du am fenn foo xam day sedd. baalu cin buy baax la amul fenn buy sedd moom moom. xeex moom jox xeex moom du ma jox kenn favori. Hmm. waaw mais en tout cas daal Bombardier loxo yi diis na lool. xaw ma nag Balla Gaye tamit loxo yi diis na lool <laughs> moom loolooy problème dégg nga waaye duñ jox kenn favori nag. parce loolu laaw est ce am na favori sax. Mm. Mm. ñu ngi si play bi nekk seen diggante ñoom ñaar bañ na ko ba seen face ba ñuy kaf di ree ci loolu. image boobu moo war yëpp mbër mbër yi fi ñu toll nii ñëpp moo leen war. Mm. booy leen ci benn seen wàll di leen wéyal ñuy fecc. seen amateur maanaam seen supporter dañuy xam ne carrément ñii làmm rek. benn une mbaa benn deux moo leen boole bu jeexee jeex na. bu paree ba mu waaj dem seeti ko Guédiawaye mbaa loolu moom la ñuy laaj ci combat ji combat bi. te mm-hmm. fi mu ne nii fi mu toll fi ñu tollu ci làmb. Mm-hmm. ak li jot a jàll. Mm-hmm. non fi ñu toll dañu war a jubbanti làmb dañ ko war a teg si code dañ ko war a teg si yoon. te ñoom leader yooyu noonu. ñoom ñoo ko war a def. li may wax rek chaque jour <coughs> mujjee puso mu réer. as gor as gor war na koo bañ. parce que suñu papa dañoo def lu leer. suñu mag yi ñoo def fi lu leer. kon ñun ñoo fi ñëw des. ñu ñu fi des nag dañuy fexe loolu leer parce que leer gu leer gi moom mooy. communication bi ñuy def ñoom ñaar day tàng si ñoom ñaar seen diggante. mais bu paree pare ah. da ngay seetlu tey ji Bombardier bu paree noonu la mel sax. Balla Gaye li mu lay wax si biir signature bu làmb ji signature contrat bi jeexee. day am sax kersa jàkkaarloo. Mhm. kon moo ñu boole la bu jeexee jeex na. Mhm. communiqué boobu noonu ñun ñëpp muy ñun mbëri yëpp nag. Mhm. waxuma Pathé waxuma Demba. dañu war a def communication boobu noonu. parce que dañu ñu dëkkal foo xam dëkkuñu fa. léegi da ngay bëri sax da ngay am combat sax ñu naan la ah tey leen ñibbi de. da am combat sax ñu naan leen ah fatu leen de. dëkkal ñu foo xam te ne dafa ñaaw ba te donte ñun fi ñu dëkk fi ñu fi ñu si làmb weesu làmb weesu fa. Mhm. am na lu ñu doon jooy am nañ ko. Mhm. arène nationale am nañ ko léegi. Mhm. pourtant war na rafet. war na rafet. te nii ñuy ko gars yi defee nii moo wax dëgg yàlla kontaan nañ ñi dañuy xaar yenn combat yi des nag ku mel ni Modou Lo ak Ama Baldé combat boobu noonu nañ ci ñi nga xam ñoom ñooy bëre nañ dawal fair play boobu ba seeni supporters gis ko. te xam ne lam benn takk soxla rek. bu jeexee jeexul li amoon samedi ba bañ a amaat. waaw. dégg naa Modou Lo ñëw na mais mënul dugg. waaw xam nga ci fan sa Ama yee ko tere mu dugg loo gisee loolu. waaw xam nga loolu la daan moog laa amuñu ànd. waaye soo déggee ma ne communication bi. nañ ko dañ ko gën a nañ ko gën a def ñoom ñaar loolu moo tax ma koy wax. muy Modou Lo muy Ama. Mhm. nañ gën a defar communication bi. Mhm. ñun suñ combat bi ñaata signature lañ def yeggut. ñett yoo xam ne yeggut. Mhm. biñ demee Joal yeggut. Mhm. biñ ñëwee euh, kii bi nu ñu koy waxatee sax. so cosaan. cosaan yeggut. biñ ñëwee euh, Ibamaar Ibamaar yeggut. Mhm. te pourtant laa ma ji na. damaa foog ne loolu xanaa ci mystique yi la bokk. non ci la mënu cee ñàkk nag fii waaye kan mystique yi la. ñoom il faut ñu communiquer ñoom mbër yu mag yi. nañ communiquer bu baax pour mën a teg làmb ci code. waaw.

bu Modou Lo xam na ko boobu boobu Ama Baldé xam na ko bu keneen ak keneen xam nañ ko. Mm-hmm. làmb ji benn takkusaan la rek mu jeex. Mm-hmm. buñ paree ñoom ñooy tuddantewaat mm-hmm. yi ñun amateurs yi ñoom ñëpp nañ jéem a doon benn te defar suñu làmb yi moom moo gën. daanaka ñun li def nañ ci làmb lu bëri. yàgg nañ ci lu bëri mais suñuy rakk dañuy ñëw. loolu tax may wax ne mujjee puso mu réer as gor war na ko bañ. loolu communication bu lay Tidiane Faye la le professeur Lamsa dama koy kontaanee bu baax bàyyi ko mu tàggatoo balaa loolu santal gërëm may naa la santal gërëm. waaw sant yàlla bu baax rek xanaa di gërëm suma sama sama kilifa gi nga xam ne moo nekk fi may liggéey nii fa laa nekk nii mooy ONFP. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla ko suñu borom yàggal fii muy Souleymane Soumaré. amiin waaw. ak ñi nga xam ne personnel yi fa nekk yëpp maa ngi leen di saaree bu baax. Mm-hmm. ak sama jigéen bu baax bu ñuy wax Seynabou moom moom moo ngi nekk au niveau annexe. Mm-hmm. maa ngi leen di di nuyu nag sama waa waa Tivaouane Lamsaar yëpp maa ngi leen di siyaare di leen bëggee waa Diamagan Jaksaaw euh, Cité Nalla ñëpp post caare yëpp maa ngi leen di bëggee di leen caare géej maa ngi leen di bëggee di leen saf ndax laama ju mu jeexee ñoom ñëpp dañoo ñëw sama kër wax dëgg yàlla mm-hmm. di ñaanal nag mbër yi xam ñoo am Lamsaar combat actuellement yàlla nag suñu borom naan leen suñu borom defal ay ndam di ñaanal nag suma waa dëkk fogale séeréer mi Tidiane Faye naa si maa noonu jokaa noonu a njal na combat yi si layaa nuun koy ne combat ne passé na ga'aam ñaan ne fop caan ke fop a gara i ngeɗa koy nu ñaan moƴo ñaan i moƴo ñof njoft mbamir daal di wax jërëjëf di wax jërëjëf di wax wax axlu laam yëpp kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax mm-hmm. di nuyu sama papa Max Mbargaan di nuyu nag sama grand Cheikh Niang bu baax ndax ñooñu mënu ma leen fay mm-hmm. waaw ñi nga xam ne ñoo jàppoon si làmb ji yëpp nag bu ma limee damay juum mm-hmm. waaye ñëpp maa ngi lay surtout surtout maa nag waa pele bi waaw maa Aïcha maa ngi koy bëggee bu baax moom la professeur de Lamsara di Tidiane fay di ko ñaanal jàmm ju bari bari kon ñaanal aussi ndam li jikko Père Max sama papa maa ngi lay nuyu bu baax a baax ah borom na gaaw na gaaw laa muy day am incha allah damay bëgg ci yow bu baax a baax a baax sama caméraman bi kenn du yow mañ pro zéro stress dundal 111 ans sans ordonnance moom moo ma ne 100 pour dundal Aïcha ba beneen yoon ci beneen waxtaan lamb jaajëf